yéen a xew nag oh yéen a <laughs> sama xarit di xew nañ ay waay li ëpp na ay sama koñ xale eh sama xarit bi Mariette dafa am fans am na sama koñ fans dëgg la <laughs> eh, li yombul am nga fans Pikine ndeysaan dëgg la xoolal yéen yéen am <laughs> yaa ngi yéen seeni fans <laughs> nañ leen dox nañ leen dox ndax fans yi ñëw an seeni fans yi